maam alaaji saalum maam alaaji maas ba ñoo ko fondement ndaw fondement bu maam alaaji saalum maam alaaji maas ba ñoo ko fondement ndaw fondement bu rëy alaaji baaboy xalifatu baay bi ci biir ndukku man man biram em ma daarul muhibbiina dugul maa ko wëy man nin ka moo leen مولانا شيخ ابراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد غير الانام الحمد لله الكامل ناقصا دي على ميقنا اجمت لنا يا الله صفاتا وصفاتا واسما وشعبا كمات جمم جلا كمات ملا ملا كمات تولم جلا كمات ملا جفم man bi kamaalil kamaali fi saa'iri tajliil nga xam ne dafa màcc mboolem feeñ waaye mooy والصلاة والسلام على حب فلك الجمال وعين حضرة الجلال ورضوان الله تعالى وعزمه في كل حال من الأفعال أضع إلى الله وسره في الأقوال والأفعال مع بعض أنا كناو كما تدعي الله بمسيح يوم دعي الله محمد صلى الله عليه وسلم فمن كاتبه لا تبين لي بايع كوتي أي بند جو خمني اسمه أخي برامسي كرام ورمان تمتلي أخي ورمان تمتلي أخي ورمان تمتلي أخي الى اخواني في الله leetar baa اي nii في الله وفي رسولي اي fi في الله mbokkam ci yonent bi wa fi cheikhi ay mbokkam lañ ci Cheikh Ahmed Tidiane bàyyi leeral na foofu ne ñoom moom ñi mu ànd ci yàlla dañoo ànd da jaamu yàlla xam ne ñoom ñëpp yàlla seen bopp waaye li ñuy def it ñu ngi ko teg ci sunna si yonentu yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam waaye ñoom ñëpp taale na Cheikh Ahmed Tidiane moo tax bàyyi na samay mbokk ci yàlla samay mbokk ci yonent sama mbokk ci Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane al muxaddam baraka muxaddam la alxaaji Saloum ma yàlla bi Saloum Diané wam ni uxti ak damay mbokkam ma al muxaddam muxaddam alxaaji Maas asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bàyyi ne jibu li waral ma bindee leetar bi ilaamukum mooy ma xamal leen bi anni nekk man samitu ma antum alay dégg naa li nga nekkee boobu daal am na bu xewoon ay noonu pays bi da leen sonal déggaloo nag bi ñu leen leetal nii waaye nag bàyyi ne walilahi taala alhamdu waaye nag maa ngi sant yàlla yéen moom li ma dégg ngeen nekk moom maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax loolu moom doy na garab daale boo xam ne mu ngi ci melokaan woo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima sant na yàlla ci melokaan woowu daale boobu la nekkoon gën a xam la mooy nekk ci li bàyyi nekkoon te def li bàyyi doon def da digle li bàyyi doon digle te mooy digle yéen bi daal sallallahu alayhi wa sallam waaye ne maa ngi dégg ne min al iqbaali ila allah yéen daal da ngeen a jublu yàlla rek ku teg ko ceeb yéen a ngi ci yàlla santaane wala istixaara bi yéen a ngi soxlawoo yàlla waxtu wu ne yéen a ngi soxlawoo yàlla an kulli ma siwaa lépp lu dul yàlla am lañ soxla kon nag loolu ci ngeen nekk maa ngi ci sant yàlla wa inni usikum daayiman bi jaay ndax maa ngi leen dénk nag li ngeen nekk noonu dana ngeen ci sax kon nag bàyyi bu ne xel ay sama ñaane dégg naa li ngeen nekk maa ngi ci sant yàlla jublu gi ngeen jublu yàlla soxla ngeen soxla yàlla loolu loolu ngeen nekk na mooy leen dénk ngeen sax ji loolu bàyyi dénk nekk bi la bàyyi na ko boo aussi ko nga sabri maa ngi dénk ngeen da muñ alama gis bu ko mën a naas li xam ne dana leen jot bàyyi ko ji dana leen jot di bàyyi ko ji nit ñi ah daal xadara bi noonu pay bi waaw noonu pay bi dañuy wax ci yéen ñi ñoo yàqu bi ñoo benn xam yàlla ñoo bi nangam nangam yooyu wax yooyu nga xam noonu pay bi ñu koy wax dana parce que waliyu yàlla woo gis rek yàlla dana ko tegal ay moom yoo xam ne ñooy nekk da ko seen la grâce la waliyu yàlla waxtalagal moom ngeen muñ ñi nga xam ne mu noonu ngeen xam ne ragal yàlla rek ñu nee ba ca rek ñi ragal yàlla kese ñooy ñooy continuer waaye képp koo xam ne yaa ngi woon rek te loolu dëgg-dëgg moo moo am Cheikh Aliou Sall ba leen bàyyi wax loolu boo jógee Saalum Diané mu jafe woon lool métti lool nit ñi war leen côté bu ne da leen xeex da xeex pay bi lu ne ñi kere yal leen waaye yaakaar naa ne fi mu ne ci fu ñu wax xadab daarum bi biin fu ñu wax Cheikh Aliou Sall fu ñu wax Cheikh Aliou Mass daañu la xoolaat daañu la bëgg daañu la sopp daañu la wóor kon la bàyyi waxoon wala ne mutaqina mujj ñeel na ñu ragal yàlla bàyyi ne ay alquran ne yaa ayyuha alladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum yéen ñi gëm yàlla bu ngeen dimbale yàlla yàlla dimbale leen ko dana saxal seen bopp yàlla ndimbalul saxal leen seen bopp mu fàttali leen nag ne leen ashadu naasi balaa al anbiyaa nit ki gën a tar ci noonu ki gën a tar nattu ci nit ñëpp mooy yonent bi wal awliyaa topp wali yi kon nag bu ngeen gis ci ay nattu ay fitna yu bàyyi ko na ngi dee bu leen jaaw xam ne ni waase yonent yi dañu amoon yonent bu yàlla samp rek sampal na la moom yonentu yàlla Muhammad yàlla dafa sa safal sa ko jënd yonentu yàlla Moussa am na Ibrahima am na ku ne am na noonu kon wële yàlla wële rek na am noonu yàlla dañ sotee parce que ñooñu ñooy sax ñooy tax sax nga am effort dafa dëgg bàyyi na leen nag li dal loolu dal leen nag ci ay jafe-jafe yi nga xam ne muy bàyyi ko nañ bee man mii da seen sëriñ maa ngi leen xaw na dem sama sama sama commencement wu nga wax la moo xam leen andi naka man ala si xëy si nii sama ndawee xat wa xusóor ak sama gàtt xam-xam loolu moo ko sañoon loolu waaye ma xam ne mu bàyyi ma sa nekk ndaw waaw Fatma Fatou Ndiaye dama gis sama may nekk ca Lankaay wala sama Fatma loolu nit ñi loolu rek la mën a dégg moo tax ma wax na loolu. jiitu na loolu kon bàyyi ba ne sama ndaw yi ak sama gàtt xam-xam wax dox ci diina ak sama lompañ ci diina néew doole. loolu yëpp ko ma ci nekkee usiikum fillaahi haqqal wisaayati lor nañ ma ci yàlla dayab lor dëgg dëgg lor lor nañ ma ko mën waaye wara moo nii wax nañ mën a sax bi kufri ñu ne xéeféer la wata xasooxi ñu ne kii faasix la wata li la xaraam ñu ne kii day dafa yegg dagaan li xaraam rek waxata xaraam ñu ne kii day dagg mbokk wa ifsa tariqa cheikh ñu ne kii yàq na tariqa cheikh ja yéen defaale maa leen dugal nañ tariqa bi lu ci bokk waxtu raayal kat ñu ne ah kii day saxal ko neex loo xam ne man ca gannaaw dëgg dafay waxal yàlla ko neex rek waxtilaayu kasib ala allahi moom day daay day waxal yàlla ko neex wa sihri ñu ne kii njeebeer sax la yore waaw li mu nekk ni daan njeebeer la nit ñi topp ko ni mbooloo mi di njeebeer wala gënu ñu ne dafa dof li may wax nii day wax ne ca mosu ko wax kii dafa dof waaw bàyyi ne wa faala bi min afaali maa laa yësi bi xalam yi def nañ ma loo xam ne sama xalima du ko bind loolu kon jéggi na la yor waaye nag bàyyi ne loolu yëpp boo ma amee ko sabab lillahi mu muñ rek ngir yàlla waxtasabtu bi dalika ma sàkku njiwu yàlla rek xam ne yow la yàlla moo cay nekkal ñu ci ñaan nit ñi dala nga nekkal yàlla nekk kuy lëggeel yàlla nit ñi dala lor ngay muñ yow da yëkkati ko rek dem yàlla day kawe sama xaama ñoom ñooñu dara xëy yàlla dana gën a toroon ba bis dana jot ñun ñëpp ñu ba xam ne ñu nekkul ci dara yow ngay yëkkati ko daay ma moo tax bàyyi wax ne sama moom de moom gudd fan la koy ñaanal ñoom asan si sa ne na romb na ci Assane xam nga ñu dëkkoon fee mu ne ko waaw ah, waaye boo kër ga ñu doy waar lool kër yëpp avancé na kër gu bàyyi na ko man de sama noonu gudd fan laa koy ñaanal yàlla ñii biñ doon dund tey bañ xam ne ñoom ñoo nekkoon ceewal dañ tax man nekk ci dëkk moom sama noonu gudd fan laa koy ñaanal yàlla moo tax bàyyi na ba ma ko muñee muñ naa sàkku yow yàlla ca la ca lool wa rafaatu anil xalqi himmati sama hitta yëpp ma yëkkati ko walis bi ndef yi ma jublu yàlla بدك بدك ماني لجيري الله كي مين ده مين ماني لجيري الله كي ثور يلنت يا الله صلى الله عليه وسلم فلوك ما بيني بيده مني بيني بيده نعم عبد الله يخو الخلف مني ببالي بق بيني صدق توك سمعك أم بيني بيده بقنا توك سمعك يا الله لي وعلمت أنهم لا يكرون ما قام نيني من إلا يلور ولا ينفون تمر لجيري نيني من لجيري من يلور ولا يكون إلا ما أراد لي الله نمر ما يام فكل نيني يجري من يلور بري نكو يجري من يلور فكل نيني يلور bari na ko ne jàmm daloo nañ jàmm waaye nit ñi wane jërë mënuñu wax seen pexe yeeg seen làmmiñ yeeg loolu la ñu am waaye yàlla jëriñ dëgg dëgg yàlla lor bàyyi na ko ma xam ne kon nit ñi mënuñu jërë mënuñu lor wala yekun illa ma aradallah dara du nekk lu li yàlla nam li yàlla nam rek maay yàlla lu mu nam la naan inna allaha baaligu amri yàlla lépp lu mu jël vision vision yàlla kenn moom ko acc moo tax yàlla di dëgg bàyyi ne loolu la doon dundee wa ma arada lu yàlla nam nag ko fi xayru taam yàlla nag lépp lu nam wa nasara nii waxee yeeg li ñu wax su yépp ñu muñ ko xam ne nit ñi amuñ xool ma benn mbindeef sàkku yiwu yàlla waa nasara ni bi nasara mi ne yàlla dimbale mu nag dimbal loo xam ne fa moom yàlla la bayee ko wa kafaani yàlla fegal ma charra man aadaani xëy ñu ma doon noonoo yépp yàlla fegal ma gën xëyee yàlla nag jox ma li ma bëggoon yëpp mu ne nag lii ma wax leen nii moom laa leen dénk fas lu ko tilka tariqa na ngeen soobu yoon woowu muñ leen def leen ngir yàlla seen xaatir yi bu ci dara toqalul yàlla yëkkati leen seen ci wala si mbindeef yi xam leen ne kenn du jëriñ xam leen ne kenn loolu pour yàlla te yàlla lépp lu bëgg xiw la dox leen neen dem bu ma ci nekkee noonu lu la de yàlla mu ci dimbale ma fegal ma ay noonu yi ma tam soofu leen yoon woowu bàyyi nag wax wax leen wax ju neex ne waa ama xarit bi soriwul dara soriwul dara da ba yow na naa di ne ñooñu da leen lor dañu mujj dëgg ci wet di xaw laay ci kàttanal yàlla ak ndimbalam loolu mooy bàyyi wax na wax jéem yoo xam ne bàyyi moo tënk mu ne wa fa inni alamu zamanan yatihi almustaqbal wa ka annahu bi manzilati almaadi indi man lam yasul tariqakum yasluka wa yasal bàyyi ne fa inni alamu man de xam naa zamanan yati jamono joo xam ne mu ngi ñëw ci kanam fi almustaqbali ci kanam lay ñëw wa ka annahu loolu nag daf ma leeral leeral leeral leeral leer ba bi manzilati almaadi dafa mel ni passé ci man indi li passé ci man ni ma leeree lii ñëw noonu noonu la ma leeree gis naa seen mbir te noonu la ma leeral bàyyi lu gis mu ne man lam yaslu tariqakum yaslu kaa wala tam képp koo xam ne soo wut seen yoon nekk ci li nga nekk bés a ngay dana ko réccu te daw ñëw koy gën a gis waxtu wu ne ñun suñu ñaa ngi daawee bu sori ñëw ci xadarat daaram nangu xaal fi nekk nangu liñ fi gis macha allah jokk ci jokk ci seen lépp parce que biñ ñëwee di gis leneen lu njëriñ Mawlana Cheikh Ibra kon li Baye waxoon ne ku soobu seen yoon li nga nekk ni sa ngay ñëw dana ñëw soobu ci li nga nekk boole ko rëcc loolu waxtu na ñu ko gis bàyyi ne wax hasard maa waje ba dañuy loolu laa bëggoon a xamal loolu ko taxoon a jóg wa arsatu ilaykum maa ngi yónni seen mbokk wa muhibbakum ak leen bëgg Ababacar Diagne Ababacar Diagne moom moo andi woon lettre moo ko yóbbu woon li yasurukum pour mu ziyaare leen naa Ababacar Diagne moom la quoi joxoon la def moo ko yóbbu incha allah. wasalaamualeykum maa ngi ñaan yàlla ànd yi ànd naa yaa ko mu dimbale leen mu dimbale ñu te dimbale leen li ñuy ci nga ne leen. te yow fexe naa yàlla dëppale li ma yëngu wala daaw ci li nga xam ne moom la bëgg wa daaw yi bi yi feebar. waaye wasam la comme yàlla na yàlla boole suñuy mbooloo ak suñu ak seen mbooloo imaam yi booy wax xam ne loolu la yàlla gërëm te ata nu jaawira rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bañ dëkk ak yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci ji yéen daraja yonentu sallallahu alayhi wa sallam wa kadaba ali sise naafila naan fatti cheikhina bi isnihi ibrahim ibn mawlana cheikh alhaji abdullah bu madina kaw la lettre bi ñu ko ko bàyyi bind boobu moom nga madina si daal si moo ko bind ci toxalee ko ci mbindi ku màgg ci mawlana cheikh baay bàyyi ko bind si daal sotti ko yónni ko Ababacar Diagne mu andil ko salaj salam yaane boo bàyyi kaw li may wax moom rek seen yoon gis naa jamono joo xam ne mu ngi ñëw ni mu leeree ci man dafa mel ni passé ku sóobu seen yoon dana ko sóobu ànd ak loolu ba bisu tey bii loolu ñu koy gis man gis naa ñu bëri ñoo xam ne nekkoon feneen lañ tarbiya feneen lañ jokkoon waaye dem nañ ba xaal ba ñuy gis foofu noonu doy leen te ñu ngi ñëw jokk ci pays bi tasaaroo ñu ngi ñëw ci loolu bëri na bëri na bëri na lool bëri na lool si jamono bi am na ñoo ne dañu dem ba réer dem ba réer ci pay bi yàlla parce que pay bi nit dana dem ba réer ci nit dana tàmbali yàlla nekk aarif dem yaa ngi réer ci pay bi yàlla te loolu bàyyi sax ne nag xut bi daf leen ko defee nag ni ñuy def war aw nii sama kaala ga rek dañuy seen ci kaw. kon xaado illa yee ñoom ñëpp ñu ne nañ ci borom kaala ga leen bu ñu ñëwee rek orienté nañ teg loolu ba léegi mu ngi dal nit ñi. tarbiya xam yàlla téye yàlla bi dafa neex gis nga boo ci nekkee ne amul ku la orienté da ngay sànq te alquran wax nañu ko abara ayta man ittaxaza ilaahu hawaahu wa adallahu llaahu alaa ilmin danaa gis la waajoo xam ne am na xam-xam gaa waaye bànneexi bakkan bi moom la topp yàlla mu gis sànq réer réer ci biir xam-xam kon nit dana réer ci xam-xam yaa daawuda innaa ja'alnaaka xalifatan fil ardi la ngay xalifa ci kaw su waaye fax ko bay naas bi laq na nga àtt ci dëgg wala tatabil hawa bu tok sa bànneex bakkan la boo ko rek fa yuddi la ka daf lay sang te nit da la ci pey yalla dundu dem bam yag yàgg ma dugg ci bakkan te du yëg ci bakkan ko génn na bu yag du muy bakkan kooku nag kenn moo laa orienté pour mo wala cheval comme que moom nee na bu xutbu yi gelebe mo len di orienter lutax tax xutbu yi dañuy dem ba buñ jeexee ci pey yalla do di gisati yonent bi pay yonent mo len di rek ta bàyyi na mom lu mu jeex jeex ci yalla rek mu ngi jàkkaarloo pay yonent yàlla moom salaatu fanawum du ko yakal ba xam ba xam du ko yakal fanawum bu màndee itam mu ngi jàkkaarloo yoon soo xam ne boobu day jël aftaar yoon nañ li mashadin li mashadi ay ni saakir su ma laaj ba xóot biy gërëmee ba gisatuñ fi ñaaw man maa ngi jàkkaarloo daay nag koy yéen yàlla sa comme que bàyyi la boo ne ba xóot biy gërëmee rek dafa yàq kon amul sikk sàkk na pay bii nga pay Mawlana Cheikh Ibrahim amul kenn ku ci mën a orienté nit te jaareew na ci mbindi Mawlana ak jàngale Cheikh Ibrahim jamono bi ñu bëri ñu naan bàyyi laa solution bàyyi laa solution waaye war nañ ko def boole nag bàyyi laa modèle bàyyi laa référence feeg ñaar yu bokkul rek feeg ñaar yu dugaluloo ko rek bàyyi laa solution amoon na du la jël waaye bàyyi laa solution mooy la bàyyi laa solution mooy nga dellu ci jàngale Mawlana Cheikh Ibrahima téere yi bindam yi dafay wax ne koo xam ne sa sëriñ taale bi juróom-ñaar fukki téere juróom dëgg dëgg waratulaa def jëfe kon maa ngi dénk sant leen dégg nañ delluwaat ci jàngale Mawlana Cheikh Ibrahima nañ liiraat jaay rasaay nañ liiraat mboolem jàngale Mawlana Cheikh Ibrahima taalibe yi ñu wax leen li bàyyi wax wan leen bàyyi ak jàngaleen ñu noppal noppale duñu wane si bopp nañu wane bàyyi suñ ko defee rek yëpp dañ jëriñ te ñëpp dañ jege ci ñu sant yàlla nag xadara bi euh, xadara daaram ñu ngeen na leen bàyyi yaree woon ba léegi ci loolu rek lañ nekk jàngale bàyyi lu bàyyi nekkoon ci rek nekk loolu ñu ngi sant yàlla di ñaanal yàlla suñu xalifa Mawlaaya Cheikh Ibrahim Mawlaana Cheikh Xalifa Baba xam ne dañ ko tuddee Mawlaana Cheikh Ibrahim bàyyi mooy turandoram waaye bu doon Mawlana Cheikh Ibrahima mboolem feeñ waaye bi doon na ko ci xam-xam doon na ko ci njàmbaar ci lépp lu ma wax ci dëgg da koy wax du ci am masla ak koo mënta doon loolu Mawlana Cheikh waaye doon na na ko ci alamiyatu bàyyi di la ko xam ne fu ne la daan teg tànkam ci àddina bi fii wax ak yow mu ngi Amérique ci ay jotaay yoo xam ne mu ngi koy liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima fu ne laay dem ci àddina bi. gërëm rek da ko seen sant gërëm xam nañ ne comme gërëm dëgg dëgg bàyyi rek ñu ngi sant bu baax baal ma ko jël ci émission bi di jël Babacar Cissé di ñaan yàlla seen euh, site bi yàlla na dem ba nekk télévision boo xam ne dinañ ko seetaan yàlla dooleel leen yàlla may leen may leen doy yàlla na ngeen dem àll bi yëpp ñu Al Jazeera yàlla na ngeen dem ba ëpp doole Al Jazeera ci àll bi lépp da liggéey Alexandre yàlla yàlla def ko lii sànni semence bi yàlla def ko ci barke fan bi yàlla yàlla def ko yëpp. incha allah Birame Cissé ak ci Birame Amathop Isaac. macha allah ñu ngi ñaan yàlla nangu nañu. am alaaji Saalum maam alaaji Maas Ba ñoo ko ndaw fondement bu rëy Cheikh alaaji Baaboy xalifatu baay bi ci ndukku man man biram em na daarul muhibbiina dugul maa ko man min ka moo leen njëkkaa wëy cër